lay teema jóg maam jaara ji ci poroxaan ñu ngi ko créé le 5 mai 2005 ki ko taxawal moom moo di sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Bassirou ñu gën koo xam ci sëriñ Moustapha Bassirou jublu gi mooy taxawu turandooy soxna jaara buso yi ñu mokkal alxuraanul karim yar leen ci yarub lislaam boole ci formation professionnel tàggal leen ba ñu mën a am métier daara ji nag ay soxna jaar rek ñoom ñoo fi jàngee. seenub lim jamono bi ñu ngi ko xayma ci juróomi téeméer ak juróom fukk maanaam 550 maam jaara yoo xam ni ñoo jàngee ci daara ji. daara ji nag internat la maam jaara yi ci biir la ñu dëkk ngir nga tàbbi ci ba ca njëkk moom mooy doon turandooy soxna jaara Bousso. beneen bi mooy ñu bind la nga nekk membre ci daayira maam jaara yi say at war a toll ci juróom jàpp juróom benn. amit lu toll ci ñetti carte yoo xam ne danga ko dagg at mu jot ci fondation Maam Jaara bi su loolu wéyee ñu bind la ci liste d'attente bi nga xam ne at mu jot daa ñu def tirage au sort ñi nga xam ne ñoo génn ci tirage boobu ñu yóbbu leen ci daara ji ñu mën a door seenum njàng daare Maam Jaara ji ci kilifteefu Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou la nekk ñu jaarale ko ci fondation Maam Jaara bi nga xam ne Serigne Issakha Mbacké moom Serigne Bassirou moom mooy administrateur bi fondation bile ñoom ñoo yor daaray maam jaara ji di ko doxal ñu ànd kook mbooleem daaray maam jaara yi nga xam ne dañ ciy jëf saasu ne ak fédération daaray maam jaara yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak ci bitim réew daara ji fukki weer la ñuy jàng ci at mi li dooree ci octobre ba ci juillet ñaari weer yi ñu bàyyi gone yi ñu dellu ci seen kër yi dem vacances daara ji nag bi ñu ko taxawalee ci 2005 ba ci 2021 bi lu toll ci ñaar ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn maam jaara jot nañ cee mokkal alxuraanul karim ci mokkalin wu wér te sell ñooñu fi jotu mokkal am na ci fukk ak juróom-ñett yoo xam ne jamono bi ci daara ji lañ leen jëlaat ñu fi jàngale daara ji am na personnel administratif bu fi nekk maanaam ñi nga xam ne ñoo ŋànk liggéeyub daara ji seen lim toll ci juróom-ñaar am na ñaar fukki jàngalekat ak juróom-ñaar ak juróom fukk ak juróom-benn encadreur maanaam ñoo xam ne ñoom ñooy saytu di taxawu gone yi ak ñaar fukk ak benn yoo xam ne ay fonctionnaire état bu Sénégal lañ daara ji mboolem maam yi fiy jàngee amul kenn ku ciy fay inscription wala mensualité mboolem jàng mi lépp doo ci fay dara ne lépp lu jëm ci dépense daara ji muy fonctionnement la ci aajowu lépp fondation Mame Diarra Bousso bi moom moo ko yore ndax weer wu nekk daara Mame Diarra yi dana dépensé fukki millions ak juróom-ñett ci suñuy koppar maanaam 18 millions de francs CFA. lii nag moo ëmb mboolem dépense yi nga xam ne moom la ñuy def ci daara ji ci weer wu nekk lii nag di lu diis loo xam ne année scolaire bu jot bu ne fondation Mame Diarra Bousso bi dana dépensé ci daara ji 180 millions de francs CFA. di téeméeri million ak juróom-ñetti fukk ci suñuy koppar. ngir jàppandal liggéey bi moo taxoon fondation Maam Jaara bi créé lu ñu naan parrainage maanaam baayu daara wala ndeyu daara ci képp ku ko mën mën a jël benn Maam Jaara di ko verseel bés bu yàlla sàkk téeméeri dërëm muy dépensam maanaam weer wi 15000 francs CFA di ñetti junni liggéeyub daaray Maam Jaara ji fédération daayira maam jaara bi nga xam ne moo nekkee ci dakaar ci njiital soxna maam jaara Mbacke bintu cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke Bachir ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo ci taxaw daara ji ci bépp fànn am ay projets yu bari yoo xam ne jot nañ ko taxawal ci daara ji ba jamono bi door nañ ko bokk na ci plan de masse bi nga xam ne moom lañu defar ngir bëgg képp koo xam ne dafa ñëwati ci daara ji bëgg fee liggéey sukkandiku ci plan boobu ba mbooleem travaux yi ñuy def ci biir daara ji lépp mën a méngoo doon benn noonu it lañ amee ay projet dortoir maanaam dëkkuwaayu maam jaare yi nga xam ne ñoo nekk ci biir daara ji noonu it la fédération daayira maam jaare bi dooree ay liggéey jëm ci defar fa ay dëkkuwaay yoo xam ne jàngalekat yi nekk ci daara ji ñoom ñoo fay féetee loolee moom moo tax bâtiment bi nga xam ne moom moo fi nekkoon ñu yokkaat ci beneen niveau ci kaw fédération daayira maam jaar bi nekkee ci Dakar ci njiital soxna maam jaara Mbàkke bintu Cheikh Mamadou Muntaxa di tàllal loxo mbooleem jullit yi nga xam ne jëf lu baax ñor na leen ci ñu ñëw ànd ak ñoom taxawu daaray maam jaara ji ci lépp loo xam ne war nañ ko fay def ci jumtukaay waaye jàppale fondation bi ci dunduk maam jaare yi képp ku ci bëgg a barkeelu mën na ko def ci numéro yi nga xam ne moom moo affiché ak ci compte bancaire yi lée ñëw leen gaaw ànd ak fédération daayira maam jaare bi liggéeyal maam jaare Bousso ci daaram ji nga xam ne moo nekkee ci Poroxaan